sëriñ Cheikhouna Bousso Dioumoulen jàpp naa ne mbokk yi liñ bëggoon xam mu leer ci seen bopp ñu ci bëri tey leer na ci seen bopp mbokk yi tomb bi tomb la boo xamante ne mat na di waxtaane waxtu bu nekk mu mel ni kon lii ab tàmbalee rek ci tomb bi waaye kenn ku nekk ci boroom xam-xam yi war nañ gën cee bay war ngir mbokk yi mën a xam lan moo ci seen wàll dëgg dëgg dëgg ba lii xew di bañ a xewati mu ñu tas bu bari kon ngir bañ a guddal rek day mel ni kii na moom bi mu ubbee wax ji rek li mu njëkk a leeral mooy al farq bayna al insaan wa al kaa'inaat xay al mooy séparation bi am ci diggante doomu aadama ak bàyyi ma loolu la njëkk a leeral te loolu am solo mbokk ñoo xam na nit borom bi subhaanahu wa taala koo génn ci li nga xamante ne moom la bind mu gënal ko ci wa laqad karramna bani aadama wa amalnaahum fi lbarri walbaxri wa razaqnaahum min tayibaatin wa faddalnaahum ala kathirin man xalaqnaa tafdila kon yàlla doomu aadama moo ko gënal ci lu ma di ko lu am solo la mu leer ñu bu baax a baax wanee kon bu baax na bu neexoon yàlla mboolem ci ñël waaye dañoo génn ca ñëla def ñu ay doomu aadama kon ñu war a jëfandikoo suñu xel xel rek ñu taxale ñu ci yi xel mi ñu beneen bi it mu wax ne mbokk yi jafe-jafe yi nga xamante ne moo waral passé mu bari mi mooy nit ñi ñàkk a xam lan mooy alqawanin anika qawanin yooyu mooy règlement yi xam ne moo tënk sëy nit ñi dañ ko war a xam buñ ko xamul nañ leen ko xam ne wax naa ba tey ne man dama wax lu bëri ne nañ dem ci biir daara yi dem ci biir école yi dem ci biir maanaam jataay yi jàngale fa nan la ñuy yore kër nan la ñuy yore li xam ne mooy soxna ndax nañ seet lu baax rek nit a gën a for lu ne te yow boo bëggoo ne dawal oto dong da nga daan na leen da nga dem wu ji koy dawale ñoo la ak école boo xamee ne dañ ko fay jàngale ak nee nag neen waaye sëy moom amul loolu da nga jékki-jékki ñu la bisimilah sëy ngi nii waaw loolu jékki-jékki tàbbi ci nag boo cee génn mën naa yomb coow nji da ngay ñàkk xam gravité ba ca nekk kon nañ jàngali jullit yi nan lañuy ñuy li nga xamante ne mooy soxna loolu mbokk mi leer na ci lu bari waaye insha allah sax mbàkke ndaw la ci insha allah waaye li ci gën a garaaw ba ne gi ci ëpp mi ngi feeñ ci ndaw ñi waxamaane yi saa gaa am nañ problème bu rëy nga xam ne kon jam nañ waaw ndax kon kilifa yi dañoo ëpp jom wala dañoo ëpp ngor wala boog dañoo xamatul ñun ñooy ñan ba tax loolu di am dafa wax lu am solo ci biir ne day mel ni ne dañ koo teg ci kaw bànneex rek la moo tax te fekk ne déet mbànneex sa tuuti la waaye say dëgg-dëgg jàmm yàlla la buñ ko fàttee nag jaamu yàlla rek dañ ko yóbbu ci cadre bànneex bu ci amatul bànneex nag fasade daal di yomb te demewu noonu mbokk yi koo xamante ni nii dangaa yaakaar ci moom lu baree baree bari te mu mën laa àggale ci borom bi subhanahu wa te gis nañ ko fi gis nañ fi ay nit yàlla yoo xam ne nii muñal seeni soxnaa leen àggale ci borom bi subhanahu wa taala damay bañ a guddal rek xëy na oustaz Cheikh Mbacke daw dana ci ñëw insha allah waaye beneen façon bi ci mooy naw ul ixtiyaar bi ñuy def mooy ni ñuy tànnee soxna yi ak ni ñuy tànnee borom kër yi xam nga dafa am lu lu ñu tuddee alkuffu taam ak alkufful atam lan mooy alkuffu taam mooy kii kat ab jullit la man ab jullit laa rek daggan na mën naa koo takk loolu lañu tuddee alkuffu taam wér na kenn wérantewu kon man nga koo takk bu fekkente ne kenn araamu ci sa morom man koo takk lan mooy alkuful atam nag mooy ñu baal ma nag kii ab tëgg la man ab tëgg laa comme moom kii ab lawbe la man ab lawbe laa comme moom kii ku sant busa la man ku sant busa laa comme moom mooy ngeen xeetoo mooy xeetoo yi mu wax da cee am solo mooy nit ki da ngay seet ki nga bokkal lépp ñu tànnal la ko moo tax bu njëkk sax dañ naan sa yaay moo naan la demal sa kër bàjjan diw wala sa kër nangam yi ki nangam wala sa bàyyi na demal sa kër nijaay loolu lu am solo la mbokk yi ñu bàyyi ko xel loolu tax tax na yoon yooyu ñu daan jaar tax na ban ko wàccee tax na maanaam lii xew bañ ma ceeñ naan ah léegi da xale te ñoom ñooy tànnal seen bopp bañ tànnee suñu bopp la fa tas bëri waaye ba muy dara mus ci amati beneen bi mooy ñu sàmmanteeg àq yi muy kenn ku nekk li nga xamante ne moom lañ moom moom mooy àq ci sama muy góor wala muy jigéen bi ci gën a garaaw nag bi ñuy def léegi xëy na Cheikh naat Mbacke dana ñëw mooy ni ñuy fasee fasale tey tey tey nga génn kër sa yaay jiwee wala say mbokk ñëw taxawal oto bi ñu jël bagage yi daal xaa noonu laa tuxrujuhunna min buyutihinna illa an yatiina bi faahishatin mubayyina mbokk yi nag ko xel loolu li war mooy mbokk mi lay wax askinuhunna min aysu sakartum min wujjukum wala tudaaruhunna dayyuqu alayhinna kon Cheikh Mbacke Ndao ñu ngi lay jox kàddu yi nga indi ay leeral ci mbir mi lu gën a kaw. bismillahi rahmani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi ziare ñëpp di jiital ci ziare boobu suñu kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew di ziare mbokk yi mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo teew ci jotaay bu am solo bi di félicité bu baax a baax suñu bëso bëso bii nga xam defal nañu doon sax ñu xaw naa doy waar waaye defal nañu waxtaan bu am am solo boo xam ne jàngat nañ ci lu bëree bëree bëri xam naa ne waxtu bi xaw nañoo jot donc damay dugg directement ci commentaire bi waaye laa ñu ciy dugg damay wax rek ne am naa mbégte lool ñëw fii ci Touba Mbella mu représenté lu rëy rëy ci man ndax man sëñ Mahmadane Diop bi moom ma leew di tudd ma ma tuddee ma doon bi nee nañ ma doon doon sama waajur bu jigéen en tout cas baax na lool da nga yow di caddu kon mbégte la lool ci man ma teew fii ci bis bi nga xam ne sëtu yi sëriñ Mahmadan Diop bi ñu koy def teew waxtaan boo xam ne xam-xam leer nañ mën nañu ko ci jàngal te loolu yi lu am solo xam naa ne sama commentaire ci ñaari pàcc lay ci njëkk damay ñëwaat rek ci yenn parti yi nga xamante ne bii suñu sang bu baax bi ci waxtaanam indi na ko ngir ma mën indi taxaw seen bu gaaw rek beneen ci def ma indi ay éléments yoo xamante ne bii jàpp naa ne nañ ko cee euh, waaw fi fi may tàmbalee rek xam naa dama koy doon tuuti ndax maa ngi dégg sànq muy wax kooku kayel nee na waaye jooju kayel la jàngee loolu xam naa boo xamoon ne surtout sàmba yàlla ci ci ci ci ci ci jotaay bi di doo ko wax waaye dama leen baal ndax naa ne busu busu yi bu ñu agsee fii duñu dañuy xaw a jànn euh, kon mu mu indi lu am am solo ci wàllu divorce mooy tas yu bëri yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel ci biir néegu sëy indi na li nga xam ne jàpp na ne moom moo ko sabab muy cause yi indi li nga xam ne bu amee ba noppi dana danañ ko danañ ko ci roote danañ waaye ñëwaat bu baax a baax it ci ndax balaa ñëwaat bu baax a baax ci di sëy yi ak ci la koy lalkaay ba la nga xamante ne bi jàpp na ne moo indi euh, problème yi nga xam ne danañ ko ci jàngonte ndax dañuy faral di wax naan lu nuyoo ci sëy ba lu am ci sëy ba nuyoo woon na ci war dañ koo fay lu xeet kon dafa mel ni problème yi nga xam ne dañ koy jàngonteel ba muy yóbbu nit ki wala ñaari nit yi ci ñuy tàqalikoo am na loo xam ne tàmbali woon nañu ca ba sëy ba tàmbalee kon mu ñëw ci maanaam wax ci ni sëy doonee jàmm yàlla bu mag waaye wax ne kon sëy dana am foo xam ne dafa war a jeex maanaam bu doon ab contrat am na foo xam ne bu fa tolloo faw mu tas maanaam faw mu jeex mu koy leeral yu am solo ñëw ci cause yi lu ci mel ni tànn bi nga xam dañ koy tànn soxna wala borom kër li tax tànn boobu bana baax wala du baax ñëw ci góor ñi tamit ñi nga xam ne dañoo gaawal fase lool mu yomb leen lool di ngeen fase ñu ci soxna yi nga xamante ne bii bu ñu dugg ci say nee na bëri na ñoo xam ne alal la leen ci dugg ak ñàkk xam-xam bi indi ñàkk worma ñàkk teggi ñàkk respect ak yeneen yu am solo ñu wit ci conséquence bu sëy amee perturbation ak choc bi nga xam ne dina ko indi ci couple bi wala ci nit ku góor gi wala ku jigéen bi kon indi ay élément yu am xam ne wax dëgg mënuñ cee yokk dara ndax euh, solo ak mate mu mate waaye dafa am ay éléments yoo xamante ne laata may dugg ci sama ci sama commentaire xaw yaakaar naa ma mu indi ci mari xalaat bu ma ci am muy bu bu gàtt bi ci njëkk muy ñi nga xam ne dañ processus su fase parce que ñëw na ci processus su fase maanaam soxna si tomb bi duma ko ak leneen leneen lu ciy tegu kon foofu dafa indi ne góor gi correction bi mu war a indi ci soxna si waaye kon foofu la ab laaj la fay laaj su fekkee ne l'envers la maanaam bu fekkee ne ku góor gi moo nekkul ci li ko war ba ñu war koo corriger su boobaa ndax dañ koo war a dong ndax dañ koo war a duma wala ndax luñ war a lit laaj la Euh, <laughs> kon jar na bàyyi xel waxaat na it leneen ci wàllu fase muy dane lu baax la bu fekkee ne soxna si dañu koo bàyyi ñu wàcc ko ci kër gi ba idda bi jeex ndax de mel ni kon jëlaat bi dana yomb lool bu fekkee idda bi jeexut da dem rek damay jëlaat sama soxla bu ko sant bu so bu xiifee fase bu cinq heures bu fexee mu naan kafe ñoo ne damay jëlaat bi joxaat ko kon lu tax ñu war a bàyyi xel loolu waaye bu fekkoon ne la mu wax bëri na ci lu muy am mooy góor ñoo xam ne bu ñu bàyyee seen soxna dañ leen di bàyyi ci kër ga amaana juboo dina am te problème du am waaye ñu ci bari bu ñuy fase dañ ci boole dàq ak génne ak toroxal su boobaa it soxna si li am américain bu am solo doon wax naan before being woman we're human maanaam laata ngay doon jigéen nit nga kon sa dimension humaine bu ñëwee bu ñu la dàqee toroxal la ak lu mel noonu boo ñëwee sabab ba xaw mu am nu mu doxale kon it loolu ñaar la rek yoo xamante ne bi jàpp naa ne loolu lu am solo la faw wi yenn saa mbir yi ndax dañuy toll jamono joo xam ne jigéen ñi doy nañ waar waaye ñenn ñi ci ñu ko sañ wax ci góor ñi xaw nañoo doy waar kon loolu mu nekkoon ci gàttal rek wax dëgg waxtaanam am na solo mënoon nañoo indi point par point jàngat ci waaye xëy na waxtu bi du ko may kon man fi may ñëw rek mooy laata may wax ci wàllum tas damay wax ci mariage damaa jàpp ne sëy yi nga xamante ne bi mi ngi tas bu doon téeméer juróom-ñett fukk yëpp tas ga feeñoon na ci bis bu njëkk ba ca sëy dafa am ndax nee na lu nekk dañ foo war a définir maanaam dañoo war a nuñ ko tuddee ko war a xem ni nga xam ne man moom laa définir sëy muy ci ñetti wàll muy ñetti dimension muy ñetti engagement ñetti engagement yi bi ci njëkk li may wax engagement de deux avis maanaam ñaari gis-gis yuy ànd bi ci tegu di engagement de deux envies ñaari bëgg-bëgg yuy ànd bi ci nekk di engagement de deux vies ñaari àdduna yuy ànd muy ñetti engagement yoo xam ne bu àndee loolu la ñuy wax sëy muy contrat ñu mën koo tuddee entreprise wala structure boo xam ne dañ naan durée ba lu indéterminé la maanaam sàkkuwuñ mu jeex ndax sëy ak tas dañoo am luñ bokk muy ñaar yépp dagan bii dafa bokk ci li gën a baax ci dagan bii bokk ci li gën a yées ci li dagan waaye ñaar yépp dagan damay faral di wax it tout le temps ñu ñu may xamale leen sëy du farata waaye mën naa gën farata ci nit kon yooyu yu yu am solo la kon ginnaaw bu ñu définiree sëy dafa am loo xamante ne bii te loolu damay ñëw ci contexte bi ñu nekk contexte Bawol mooy waral ca bisu takku sëy ba rek tas ga xeeñ li ci njëkk mooy tànn bi ci góor ñi ak jigéen ñi bëriwaa na góor ñoo xamante ne bii la tax ñu leen di tànn mooy mën naa faj buumu gàncax kon ñi mënta faj buumu gàncax ñoom waruñoo am soxna mën naa faj buumu gàncax yor na nangam boo ñëwee li sa yaay di ko danaan la fu mu am kër ban oto lay dawal fu muy liggéey loolu mooy lu ci ëpp loolu moo am lu ci ëpp baa nga sax ñuy wax waxu bokk gi ndax li may faral di wax bokk geeg bokk gu fu baax bi ñi ngi koy nattee ci nit bu poche ba fees waaye de nit mën naa bañ a bokk fu baax bu poche ba feesee loolu lu dérisoire lay doon lu ñuy xool moo am kon am am ba la ñuy xool ci lu ci ëpp bu fekkee na nag ci beneen côté bi soxna si ci context bi ñu nekk nga xam ne dañ dafa am nit bëriwul walla léegi sax jamono ji mi ngi yokk waaye xam-xam ak jàngum jigéen dafa mel ni farataaluñ ko bu baax kon soxna si day mel ni moom benn jumtukaay rek la am pour mën a am borom kër muy yaramam moo tax ci ñi ma ko sañ a wax seen yaram ñu def ko jumtukaay rafetal di ci yokk ci bokkul di soppi melokaan ngir dafa jàpp ni jumtukaay woowu rek lañu am ngir mën a am borom kër ndax li may wax bi ma naan engagement de ñaari xel ak ñaari xam-xam yu bokk muy dangay wax ak nit ki kii di xelam rafet na kii sopp naa ko am na xam-xam moom de borom xel mu rafet la moom de ku xam am xorom la fii la loolu amul rafet na mel na nii kanam nga nii la mel teint ba nii la mel loolu ci ci la ñuy basé wu pour takk sëy waaye nag yàlla dafay dogal ne loolu moom lu gàtt fan la mu yaram wu rafet bu dee am xam it mën naa gàtt fan loolu kon loolu moom bu fekkoon ne moo takk sëy ba sëy ba dafay tas ñaareel bi mooy li may tuddee cérémonie yi bu fekkee ne fii ci suñu contexte bari waa na ñu fi mayee ñoo xam ne du ñu xam ma ba ñu génnee ci célibataire ak ba ñu marié du ñu fekkee xutba ba duñ taxaw imam ba wala kay mayee ne ko lii mooy say droit lii mooy say devoir nii ngay sëyee nii nga warta sëyee yow ku góor ki nii nga war a yoree sa soxna ndax li tubaab yi bëgg indi muy parité loolu lislaam sàkk ko loolu loolu lislaam sàkk ko ndax yàlla moo ne ar rijaalu xawamun ala nisa ci bépp anam ci kër gi ci entreprise fu mu mën di doon kon man prôné wu ma parité ci biir kër gi waaye li li may prôné mooy équité équité nag du liberté ay équité mooy ku nekk la war ci yow ñu def ko kon cérémonie yi nga xam ne day am ñu def ay million dama bind benn article bu ma tuddee mariage au Sénégal fusion ou acquisition maanaam sëy ci Sénégal ndax fusion la muy ñaar ndax fusion mooy ni ki mel ni li ñaar Attijariwafa ak CBAO ni ñu def dañoo bool booloo acquisition mooy li war yi def Tigo da koo jënd ñu gis ne Sénégal mariage yi acquisition la waaye nag na ma mbokk soxna yi jéggal waaye bu fekkee ne ku góor dafa ñëw waxaale yaay ne ko ah fii kat nangam la ñuy maye mu sonn ci loolu mbokkam jàppale ko lu ne mu investissement nu ko neex la lay yore ndax bu boobaa dafa mel da lay jënd kon nag loolu dafay jar bàyyi xel bi ci topp mooy rapidement environnement externe bi ci suñu contexte sëy moom du borom kër ak soxna rek yaay goro njëkke mu bokk ci li nga xam ne man jàpp naa ne amul sens ku ci nekk da ngay am wàll naan raxasit bu ca loxo ya bëree loxo ya bëree ay tilim kon loolu dafa jara bàyyi xel ne ñi nga xam ne ñoom loolu da leen a concerné directement ñoo war a nekk acteur principal yi waaye bu fekkee ne sëy boo xam ne yaayu ku góor ka yaayu ku jigéen ka i ñaari nag seen i mag dëkkandoo ba jaay ko ku nekk bëgg cee bokk su boobaa say boobu dafay doy waar kon yooyu noonu dafay jara bàyyi xel ngir sëy boobu buñ ci moytoo yi yépp suñ borom xëy na ci mbaaxam man naa def mu doon lu am solo rapidement rek ndax xam naa ne maa ngi guddal ma ñëw ci tas tasit dafa am taarix ndax ba àdduna sosoo bay sëy am rek tas am waaye bu njëkk ba dafa am ñu ko daan luñ ci daan jublu bari waa na ku nit masaana am borom kër du am problème ak borom këram ñu xëy di ko jox ko keneen dara am na ci suñu maam yu baax yi dañ daan koy jox kii ba ci yàgg ñu jox ko kee ba ci yàgg jox ko kee loolu bokkoon na nag ci jamono jooju sax soxna yi dañoo wute woon ak man dañoo déggoon ndigal lool ba bu ñu leen ne dugg leen fii ñu dugg fa bu ñu leen lee génn leen fii ñu génn fa bu boobaa sëy bi dafay nekk loo xam ne ndigal la kon loolu amoon na solo bokkul ak jamono ji nga xam ne engagement propre daanaka mooy dugal nit euh, ci sëy bi kon aada dafa nekk lu am solo loo xam ne bii bokkoon na ci li muy indil ci nit ndax dama koy faral di bëri na loo xam ne ñun ni ñu koy dundee ci suñu àdduna ba ci suñu néegu sëy du diine aada la fii ñu dëkk jigéen day sukk sukk du diine aada la aada bu baax jigéen day buyoo sant borom këram waaye sant mbàkke ñu may la sant buso ak buso li mu nakkaree ñu woo nga ne buso du du du diine aada ju baax la ngir aada yi jox cër ki nga xam ne mooy sa kilifa ci moom ngay sàkkoo ajjana ci moom ngay sàkkoo lu baax Sëñ Tuubaa nee na ci jawaabu soxna Penda Diop an na jihaadu niswati fi taxatil azwaaji doona mi mooy jihaadu jigéen waaye nag doonul loo xam ne farata la ak sunna waaye lu baax la kon aada dafay doon li ñuy complété te loolu dafa dafa dafa dafa jar a bàyyi xel rapidement rek ma ñëw si ay chiffres yoo xam ne waa agence nationale de la statistique dañ ko defoon muy jàng ak ci diggante 2013 ak 2016 Sénégal mi ngi enregistré 126 286 divorces téeméeri divorce téeméeri junniy divorce ñaar fukk ak juróom-benn ak lu ci tegal ci divorce yoo xam ne euh, juge d'instruction moo ko prononcé te ci li gën a yéeme mooy ci cent vingt six mille yooyu quatre ci jigéen gi lay jóge mooy def demande de divorce ba noppi ñu gën a xóotal ñu xool région yi nga xam ne fa la ëppee ñu gis ne Dakar moo jiitu ci région yooyu région yi ci gën a néewlee fii ci Sénégal étude bi ñoom ñu ngi ko defoon en 2013 Kédougou la waaye ginnaaw Dakar région de Diourbel moo ci teg te région de Diourbel population Touba moo ci ëpp kon dafa mel ni ñun ñi nga xamante bii ñooy royukaay ci anam yëpp tas gi ñuy wax ci ay chiffres ñoo ko wax fii la ëppee kon jar nañu defaat taxaw seetlu ci loolu. kon mu ñëw ci ginnaaw bi ma ñëw ci cause yi nga xam ne wala ci poñ yi nga xam ne jàpp naa ne dafay fausser mariage ci divorce bi ci njëkk muy néewal diine bi ñuy néewal diine ci néegu sëy am na ku doon laajte neen dafa doon def benn test bu jël téeméeri nit téeméeri borom kër ku ci nekk mu laaj la ne la ci semaine bi ñaata yoon nga ciy jiite sa soxna fajar nee na ba mu laajtee laaj bi tontu ba du ko joxee ndax moom jullit la te da cee rus donc diina ni muy tooyalee xol ni muy defaree nit su fekkee ne wisuñ ko rek ci laltaayu sëy ba sëy boobu mun tabax ndax kon dañuy dundee ki ndax sëñ bi mi ngi wax sànq bàyyi ma nangam fi mu toll nii booy xool tubaab yi daanaka nañ ma yàlla jéggal waaye comme bàyyi ma nii bàyyi ma di dundee la ñuy dundee góor di ànd jigéen di ànd nit di nangam kon bu ñu moytuwul rek diital diine ak aada dañuy mujj dundee ni ñoom ni ñuy dundee mooy libertinage bu ñu am barrière lu jomb ak lu la war ak lu la warul doo xam ne kon néewal diine bi ñu néewal diine muy ci góor ñi muy ci jigéen ndax bari waa na ñoo xam ne dëggi dëggi dëggi la yàlla xam doy kon ci wàllu lañuy war a digle ndax bu ceebu jën laa bëgg ceebu jën bi moom danañ ko doon waaye la nga xam ne xëy na war nañ koo tàggatal soxna si ci mu jaar ci diir duñ ko def te damaa jàng ne ginnaaw école bi nga xam ne sa bàyyi dala fay jaare dafay waajur sëy école la ci góor wala ci jigéen surtout ci soxna yi te dafa mel ni loolu des na kon ñàkk ñàkk ndax dafa am ñetti dimension yu am solo yoo xam ne bu ñuy wax liggéeyal sa borom kër sonn sa borom kër dafa dafa am lu ci am solo loo xam dañ koy fàtte man damaa jàpp ne du borom kër gi kese waaye dafa am lu jiitu borom kër gi mu yàlla suñu borom subhanahu wa taala donte si ndegam say jaamu yàlla la yàlla nga war ndax am na koo xam ne te mooy laaj bu ma doon laaj bu am solo ne ci benn article sëy ndax jigéen dafa war a am soumission si borom këram wala dafa war a déggal kese am ndax da nga ko war a jox sa bopp lu mu la wax nga tëj say say bët di ko def wala ndax dangaa war a ànd ak sa xel te foofu dafa mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ma tontu ndax leeral nañu ne la ci maxluufin fi masiyatil xalq bu fekkee ne sa borom kër da lay diggal loo xam ne dafay dëppoo ak tereb yàlla suñu borom subhaanahu wa taala du ko def kon kooku du koy topp rek di gëm say bët lam lay diggal dafa war a dëppoo ak la yàlla nam mu ci yam ndax yàlla ñu ngi wax ci suratul ahzab innal muminina wal muminat wal muslimina wal muslimat nangam ak nangam xanitina wal xanitat ak sadixina wal sadixat góor dañoo am fu ñu yamale nag ci diine loolu du ma fa du ma fa lii beneen ci des bi ci bi ci topp mooy libertinage nit ñi dañoo bëgg lu leen tënk fi mu toll nii ci jamono ji te say tënk la dégg ndigal tàggoo bu dee ku góor ki am lu la war ci sa soxna nangam ak nangam ñu bëri fi mu toll nii dara tënk leen loolooy waral bu leen mbir mi soofee rek ñu génn ci ku nekk moom sa bopp wala ñuy dugg ci yenn yi nga xam ne tubaab yi léegi noonu la ñuy dundee beneen bi ci topp mooy ni ñu bëggee remplacer suñu aada ak aada nasaraan occidentalisation bëgg a dundee comme tubaab te duñu ay tubaab li tax suñu borom bam ñu sakkee ñu yor ay der ci ni der bu bi différencier ci ak tubaab bi ca lay fee la ca biir it bokkul dafa am loo xam ne dañ caa war a doxee am lu ñu wër am luñ moom ak luñ moomul te loolu day tax bëri waa na ñoo xamante ne bii ñi nga xam ne juddoo nañ wala màggee ci yenn réewu tubaab yi da ngay am du da ngay am ak ñeewantal loolu ci ñoom da nga leen di xeeb ci nit ñuy dundee boo ñëwee Sénégal fii bëri na ñoo xam ne bu ñu bëgg wax lu rafet wax dañ naan la ko tubaabe te lu tubaabe gëw ma ne mën naa doon forcément lu baax loolu di am solo bi ci mujj ci cause yi te muy loo xam ne jàpp naa ne mooy lu primordial bu ñàkk xam-xam ñàkk xam-xam boobu ci jigéen ñi la gën a fase muy lu may déplorer bi ñuy seddalee këyit yu am solo yi damaa seetlu ne bëri na jigéen ñoo xam ne joxuñ leen dañoo jàpp ne xëy na te mooy li am ñu ci bëri mën nañoo bañ a jàngal yi comprendre arabe jàngat la bu am solo. dafa mel ni kon góor ñi rek ñoo war a ànd ak xel ci suñu contexte te yaakaar naa ne sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha bëri na xaddis yoo xam ne bëri na nettali bëri na ci lu ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko leeral te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñoo jox exemple éminent ki gën ci mbindeef dafa ñoo wan li mu daan dundee ak soxnaam waaye suñu mbokku bu su bu yi moo duggee seen kër. daanaka waxtaan bi am sax seen soxla yi mën na ca dañuy fas kanam nangam nangam bu ñu bu yàlla dogalee ñu ñuul na musiba daal di am bu ñu boolee ñuul beeg ñaawaay bi day yéen ni ñu war a dundee ak soxna yi ci biir kër gi dañ koo deful te dama koy faral di wax ñu jéggal ma ci sëy tàmbaleewul vingt deux heures vingt deux heures dañoo war a am jàmm ci sottante ay xalaat ci ku nekk di dimbale sa morom ku nekk jàppee sa moroom mu gën la waaye loolu développé wuñ ko ñun ci suñu culture fii bañ nañ ko ba takk na lañuy wax ak wàcc na duñ wax ah moom de jëlante nañ wala takkante nañ wala wàccante nañ wàcc na la ñuy wax ak takk na dañu war a defar relecture ci ni ñuy dundee ak suñu borom kër ak suñuy soxna ñàkk éducation ak ñàkk xam-xam boobu surtout ci soxna yi doo xam li la war dafa am benn sociologue Djibi Diakhaté daf ne Sénégal 99 pour cent de musulmans 1 pour cent de catholiques et 100 pour cent d'animistes maanaam animiste mooy ñi gëmul dara ku fi sa bopp di métti sax doo xalaat naa julli ñaari ràkk wala naa yi da ngay xalaat naa dem sama ba ci ginnaaw mu defal ma nangam ñàkk xam-xam mooy waral di privilégié njabar bëri na couple yoo xam ne ay njabar. moo ko yàq te jigéen ñi ñu ñoo koy jëfandikoo looloo am te loolu ñàkk xam-xam ñàkk xam-xam mooy indi ñàkk tawhid te nit ki bu amul taw tawhid mënul def lu yàlla gërëm kon dañoo war a defaat relecture li may wax appropriation féminine de la religion jigéen ñi dañoo war a xam li ñu moom ci diine ak lu ñu moomul góor ñi ëpp ñu ñu wàll ci diine yàlla ba mu sàkkee góor dafa sàkk jigéen ñi damay faral di joxe benn misaal benn exemple ma ne suñ borom bi mu sàccee bi mu sàccee aadama euh, dafa sàkk awa sàkkee ko ci faar aadama sàkkewu ko ci teg ci jiitu ko wala sut ko sàkkewu tànkam ngir wala ngir aadama sut ko gën ko déedéet da koo sàkkee ci faar ngir mu tolloo ak moom góor ak jigéen ñoo tolloo ci lu bëri yàlla dafa jël góor def ko kilifa jigéen rek ay ñoo tolloo sama chef bi nekk sama entreprise mooy sama chef waaye gënuma kon da koo sàkkee ci faaram ngir ñu tolloo sàkkee ko ci wetu xolam ngir mu am cofeel ci moom mu ko ci suufu loxoom ngir mu protéger laa gisee création kon loolu dafay jaral bàyyi xel xam-xam mooy àdduna ku amul xam-xam doo xam dara si si di maxtaar yàlla na fi yàgg loolu tamit wax na ko ku amul di teggi doo teggi dara te ku amul xam-xam mënoo ami teggi waaw euh, kon loolu dafay am solo euh, rapidement te foofu laay daanale ma ñëw si conséquence tas bu tas amee conséquence bi ci njëkk mooy xale yi ndax fi mu toll nii Sénégal sang bu baax bi nee na soxna lañu war a dénk éducation doom yi waaye bu ñuy fàttali Sénégal nee na ay jullit lañ de waaye suñu constitution constitution laïque la maanaam quatre-vingt-dix-huit pour cent wala dix-neuf pour cent de musulmans yi ñu doon ak un pour cent de catholiques ñoo fi yem droit képp bu divorce amee bu demee tribunal du ñu xool ku ëpp diine ku gën a baax ku gën a ragal yàlla déedéet dañuy xool ku ëpp am-am ku mën a yor gone yi waaye bu fekkee ne ku ëpp am-am dafa mel ni soxna may amul ci teggin amul xam-xam. moom la ñuy dénk gone yi bu boobaa mën naa naax say kon te loolu bokk na ci conséquence tas doom yi koy juddu bu fekkee ne suñu borom dimbaluwu leen rek mën naa doy waar bu ci nekk di li ñuy wax libertinage foofu la maa ngi jeexal libertinage mooy tas bu amee ku góor jàll fee ku jigéen jàll fee ku nekk nekk ci li la neex bu la yàlla suñu borom dimbaliwul mën naa yéeme ak surtout ci jigéen ñi protection bi ñu war a am ndax jàngkati tubaab yi ñun jàngkati tubaab yi ñu ci bëri dañuy prôné loolu te loolu amul maanaam sëy finalité la ndekam finalité nag nañ fexe ba am doxalin boo xamante ne bi doxalin boobu danañu préparer ci loolu te lenn conséquence te mën na nekk conséquence mën na nekk cause muy contexte bëri na ci suñu contexte bi muy polygamie góor ñi ëpp am soxna yu bëri duñ leen tolloole te ci liñ mën a tolloole yàlla sax wax na ne mënu leen leen a tolloole waaye ci li ci li ci li wane waaye eh? bu fekkee ne dangaa doxale noonu nag am soxna soo xam ne danga koy ber nangam ak nangam kooku day révolté wu te yow kon ku góor ki nekkoo ci la la ndax suñ borom nee na defal li nga mën lépp ci liy feeñ nga tolloole te tolloole wut te dangay sax namu ci ñàkk tolloole boobu dañuy wax xeej dafa am te yooyu faaw ñu ciy waxtaan li ma jàpp pour di mën a indil société bi ay solution waaye duñ ne rek nañ koy tëj wala nañ koy freiner wala nañ koy fekkee waruñ koo waxtaan ñàkk waxtaane mbir yi mooy waral lii thème bi tas bi kon loolu bëri na yoo xam ne ci ay perspectives yu ma ci wàllu crise des valeurs ci nit ki da nga war a defaraat sa bopp laata ñuy wax góor ak jigéen bi ànd nit dafa war a defaraat boppam kon bëri na yoo xamante ne bii kat ci ak jamono yi te foofu lay daanelee soxna yi dañoo war a bàyyi xel ne suñu rôle gën naa poussé gën naa profond li ñu ko jàppee kon nañ delluwaat ci téere yi nafaraat jàngaat ndax ñun ñooy première école ci àdduna bi nga xam ne mondialisation am na valeurs yi lépp lu ñuy gis terrorisme ak homosexualité lépp xeetu xeex lislaam képp la te inna inna diina inna lislaam ndegam diine ji la yàlla accepté moom la yàlla prôné lii ñuy gis ñëpp ay machination la ngir xeex lislaam ndegam jigéen la yàlla tànn pour mu mën a abreuté pour mu mën a indi nit li mu gën a fonk wala xat karam naa bani yaay li mu gën a fonk jigéen mooy maaganaan kon jigéen yooyu bu ñu xamul àdduna mooy tas kon nag suñu xaar beneen yoon nañ nañ nañ leen njëkk a seddale kay bi waaye tur daxawana alhamdulilah salaamaaleykum xam naa wax dëgg yàlla waxtu waaye li fi indi leer na lool euh, yal na yàlla defal ñu dégg nag ci li nga wax lépp ñun ñaari wàll yépp nag euh, xam naa mbokk yi jigéen yi ñoom ñépp war nañoo amaat am njàng mu rëy bu ñu jógee yal na yàlla dimbal leen ci benn mbokk ci biir mbokk yi daa dem ñaani soxna bàyyi ji daax ko yaay ji dàq ko soxna si dàq ko mu dem ndakaaru di daan dooleem dikkaat ndaw si dàq ko bàyyi ji dàq ko yaay ji dàq ko mu dem Italie na alu rek ñu ne ko may nañ la ko yi loolu lan la xam naa ko seen mbàkke ndaw kàddu gaa ngi doon bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi wa kafa wasalaatu wasalaamu ala nabii il Moustapha wa ridwanullahi tabaraka wa taala ala xadim il Moustapha mbokk jullit yi mbokk taalibe aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. gannaaw nuyoo ak ndokkeel bu ñuy jiital jëmal ko ci kilifa yi fi xam naa ci tënk bu gàtt bu ñu jéem a tàbbi ci waxtaan wi gannaaw bi ñu sante commission culturelle bi ak daayira Muhsinina wal Muhsinaat xam naa diggante bi ñu dugg xat na lool ndax jataay yi mi ngi bëgg a yàgg te itam am na kàddu yi fi war a jóg te nit ñi war nañoo yeewee ko ndax suba dañoo war a dem ci neen itte bi ki topp diggante bi ñuy dugg ñun muy diggante Mbuso bi ak Mbàkke xaw naa xat ci ñun lool rawatina nag bi suñ busee ba wax dëgg yàlla am def thème bu am solo soxna Maymuna di ñëw feela ko moom itam daanaka conférence la def ñoo ngi leen sant bu baax di leen jaajëfal ci xam-xam bu sell bi ak njàngat bi suñ bés dëgg lañ baax waxtaan wi soxna may dëgg nañ waxtaan bu baax moom itam wax dëgg yàlla am daanaka dafa delloowaat bal bi góor ñi ñoom itam ñi am responsabilité ak taxawaay bu am solo waaye ñun liñ ci bëggoon def dafa du si juróom minute ndax ñu ma ko waxee waxtu yi daanaka gàtt na te li ci bëri leer na dañoo bëgg wax ne rek sëy ñu ko mbokk yi waxee gannaaw ba góor ak jigéen ñi leen yàlla bind mënuñoo ñàkkante pour ñu dund ci kaw suuf dund gu mat dund gu sell dund gu yiw am taxe gu mat sëkk fokk góor nekk ci wetu jigéen jigéen nekk ci wetu góor te loolu lay tax mu mat ñu teg ko ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax góor ak lu mu mën a am ak lu mu mën a xam ak alal lu mu mën toll féegu amagu soxna dañ naan sampagul kër jigéen tamit ak lu mu taaru taaru ak valeur bu mu am ak diplôme bu mu am féegu amagu góor gu nekk ci watam muy borom këram matagul comme ñaam ñaar dañuy mottalante mooy war na am lu ñu bàyyi xel bàyyi xel gi dama ko def ñaari aaya bu njëkk mooy aaya bi nga xam ne moom la mbokk mu ubbee muy aaya yii di war a dégg ci xutba ci sëy soxna may mun a wax na ko sànq ñi koy war a leeral ci xutba yi ya ayuha nnaasu ittaqu rabbakum allazi xalaqakum min nafsin waxida wa xalaqa minha zawjaha basu minhuma rijalan kasira wa nisaa waaye la ma ci gën a itteel mooy wa taqullah inna allaha kaana aleykum raqiba wa taqullah jooju yàlla bu sëy bi sasu rek danaan ku nekk ci góor gi ak ku jigéen gi ragal leen yàlla ci li leen boole ndax yàlla mi ngi bëyëqal contrat bi leen boole muy contrat boo xam ne li ko war a jeexal mooy ku kenn suul morom ja war ko taxaw gannaawam waaye bu mujj yi mooy suñu borom li mu wax ne fa imsaakun bi ihsaanin aw tasirun fa imsaakun bi maaruuf aw tasirun bi ihsaan muy sëy dafa war a nekk ci anam boo xam ne ni bu ngeen di ànd mu nekk ànd bu yiw waaye bu ngeen teqale ko mu nekk teqale ko bu rafet ànd bu yiw li koy waral mooy yërëmante suturalante dimbalante mottalante kenn ku nekk am foo féete sa moroom mottali fa sa morom waaye même bu ngeen demee ba teqaliku di am ni ko mbokk mu waxee na rafet rafet gi toujours rafet gi te lislaam rafet gi da ko cee itteel solo lool ba fase sax mënoon la booy fase na rafet ni ko sëñ bi limee ci étape yu bare bare ndax koo xam ne ni wax nañ la mën nga koo denc ba baada sëw ji ba baati sow ji sax mën koo denc kon bu teq lu koy am loo ciy wax rafet loo ciy def na rafet ndax bis na mën naa ñëw rawat na boo xam ne njaboot am na ci diggante bi ndax man ni ko mbokk yi waxee sànq thème bu ma yàgg itteel la wante bi ma ciy bind li ma doon wax rek mooy ki nga xam ni moo ciy gën a loru bu tasee amee te moom defut dara dañ koo tooñ te mooy doom doom ji moo ci gën a loru te bàyyam ak yaay ñoo ko tooñ te moom defu ji dara te fitna ci moom lay ëppee loolu moo tax mu laaj ñi delluwaat ci tànnin bi ni ko mbokkee wax sànq tànnin bi nag ñi delluwaat ci njàngalem yonent sallallahu alayhi wasallam taxayyaru li nitfikum fa inal irqa dazaas kenn ku nekk ci góor gi war naa tànn kii doon ba soxnaam koo bëgguta do mu am mel ni sa doom mel ni moom waroo ko wës soxna ku jigéen ki war naa xool kuy doon bàyyi soxnaam ku bëgg du am doom ju mel ne waroo koo tànn soxna su ko defee itti jooju yaakaar naa guñ ci tànn soxna dana nekk ci baax bu soxna nag ni nga xam ne ni njàngale mu gàtt bi mu ci fàttaliwaat mooy yónent bi sallallahu Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu dafa mos a am ku ñëw ci moom ne ko man de Mbàkke jigéen ñi moom seen mbir dafa kii dama bëggoon a far ba bañ a takk soxna mu ne ko boo ko defee gën ñëpp mu dem ab diir ba daal mu ne ko daal dama bëggoon koy far wéttali ci kër ga sëñ bi boo ko defee yem ak ñëpp ab diir mu ñëwaat ne ko soxna dama taan dama ko bëgg a fa wàcc mu ne bokk boo ko defee ñëpp gën la ñëpp gën la loolu lu am solo loo xam ne laaj na ñu bay xel ne kon mënuñoo teqali ko ak ñoom sëy bi nag bu ñu dem ci góor gi ak jigéen ku nekk war a def war téefam mooy jigéen gi dafa war a bàyyi xel ne li mu ki mu jëm mooy sangam ki mu jëm mooy ki nga xam dafa ànd ak moom jaamu yàlla subhaanahu wa taala moo tax am na damaa xaw xaw wuuteeg soxna may tuuti ci li mu wax ne sëy li koy tënk dafa bari lool ba nga xam ne léeg jigéen dina xaw a jaaxle man damay wax ne jigéen ju baax ni ñu koy xamee du borom këram la war diggante borom këram rek di war la war diggante bi ay gorom rek wala ay njëkkam rek waaye damay wax ne xar yi ak ganaar yi ak bëy yi nekk ci kër gi sax war nañoo xam baaxu jigéen ndax su fekkee ne yaa ngi toppatoo xar yi yaa ngi toppatoo bëy yi yaa ngi toppatoo ganaar yi rawat na sa jëkkër rawat na sa goro rawat na rawat na rawat na yooyu mooy tax dëgg-dëgg su ko defee bi may jeexal rek mooy tënk bu am solo mooy benn xikam ci ni nga xam ne mbokk yi toujours war a tànn soxna ki ngay àndat ki ngay jëflanteeg dafa am benn mag bu baax bu doon wax ne dafa am góor goo xam ne dafa jóge ci dëkk buy tudd ngëm dem sañ ci dëkkam bu ñu tudd wóolu wante euh, ba mu fa demee mu sos fa kër gu ñuy wax yaakaar wët fa néeg boo xam ne nii néegub muñ la bi mu ko defee wët néegub muñ mu miire ko miiru fit wëtal ko guntu jàmm daal di koy tëje sago nee na ba mu paree mu takk fa soxna suñu wax teey am ak moom doom ju tudd yaru yaru bi màggee mu ne ko yaay man de sama xel dafa nekkoon ci takk soxna mu ne koo bëgg a takk soxna mu ne ko damaa bëggoon a tekki takk teggin mu ne ko teggin mooy kan mu ne ko teggin yaay mooy yiw mi ñëw ci kër gi mooy magam sunu bàjjen yaatu moo ko jur mu ne ko kooku de ku mu jur danga man da nga nekk sëykat mu ne ko waaw koo bëgg mu wàccee la sa doom bàyyi mu ne ko sama doomu bàyyi ju ñuy tudd sutura mu takk ko sutura mu takk ko takk yaa teggin sutura wàcceel ko mu am ci moom doom ji tudd doylu doylu moo mu jur ngor ngor moo mu jur islaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa